Moussa Cissokho maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna si. Moussa Cissokho nga jiite syndicat euh, des travailleurs des collectivités territoriales depuis quelque semaine wala euh, at comme ni nga ko waxee euh, da ngeen nekk en grève de quatre vingt seize heures renouvelable est-ce que mën nga ñu defal bilan wu grève boobule. waaw xam nga man maay maay secrétaire général du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales boo xam ne dafa bokk ci benn banqas bu ñu tuddee FGTSB bon comme ni nga ko waxee bon c'est vrai que euh, euh, mbir mi tàmbaliwul parce que depuis plus d'une année euh, grève yi dafa am si secteur collé gox-goxaat yi bon te loolu yëpp lu ko waral mooy depuis le mois de mai deux mille vingt deux liggéeykat gox-goxaan yi dañuy laajte ay droits yoo xam ne dañ leen ko war a te ba léegi fayuñu leen ko benn bi dafa bokk si benn payor bi ñu tuddee augmentation généralisée des salaire par hiérarchie beneen bi Sénégal dañu relever le point indiciaire bi nga xam ne bon dafa passer de cinquante et un point quarante trois dem a cinquante six point quarante trois beneen bi mooy indemnité yi nga xam ne dañ ko yokk pour personnel yi nga xam ne dañu nekk dans le secteur de la santé alors ñun boo xoolee ñun gox goxaan yi ñun am nañu personnel santé boo demee si poste de santé ak centre de santé yi dañ fa am ay kat yoo xam ne dañu ci euh, collectivité territoriale la ñu bokk ñooñu nag ba léegi jotuñu peyor yooyu te bon lu ci euh, mbir bi nag lu ci xaw a métti mooy ñi nga xam ne ñun ñoo bokkoon protocole boobu ñu signé entre les syndicats ak gouvernement bi mais tey dañu gis ne ñooñu ñëpp fayeku nañ ko ba mu des ñun xam nga déjà te ñu bokk réew mi bokk euh, war fi yem ay droit lii jox lii bu ñu bañ a jox lii loolu moo moo moo moo waral mais ñun ñu taxaw nag ne comme que ñun si réew mi la ñu bokk ay sénégalais lañu ay droit la ñu am dañu war a respecter suñu droit yi comme ni ñu ko ni ñu respecter droit ñeneen yi mais ba loolu moo antul bon récemment ñu euh, boo ko gisee depuis plus d'une année mi ngi si yoon ay grève yu dul jeex ba finalement ñoom ñu woo nee ñu ah am na benn commission de collecte boo xam ne. créé nañ ko au niveau du centre national de la fonction publique locale mi ngi déployé wu à travers le Sénégal pour xool ñan liggéeykat ñoo ci am droit ñan ñoo ci amuñ droit lépp mais boo période boobu bu ñu ko tàmbalee ah ñun niveau liggéeykat yi nee leen ah comme que am na ay effort yoo xam ne ni ngi koy commencé def ñun nañu taxaw seetaan leen liggéeykat yi tamit ñu bon nanguñu ñu loolu ñu bàyyi leen ñu dem bo bu ñu demee ba def seen collecte ba génnee ba génnee chiffres yi nga xam ne ñii la ñu war a fay ñii la ñu dul war a fay ak ñii ñoo xam ne dañu war a compléter ay dossier yàlla teg ñu beneen nattu benn tiis bu ñu dal ñun tamit muy euh, génn adduna président euh, intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales muy Sidia Ndiaye bi nga xam ne tey man maa ko wuutu si syndicat bi bi bi may bu mu doon diriger donc ñu ne ah comme que am na nañu toog ñun tamit ñu respecter euh, déyam ba bàyyi affaire yi déroulé mais depuis lors ñun lu ñu toog yëpp respecté DICDA bi def ak accalmie ak loolu yëpp gis nañ ne benn benn effort jógewul ci beneen côté bi mooy maanaam autorités yi dañu fulaalul dañu fay daal te ñun déposé nañu préavis de grève te ñun ñëpp xam ne lan mooy préavis préavis xanaa ku ko déposé nga woo nit yi ko toog la ak ñoom waxtaan pour seet trouver des solutions beneen bi ñu bind ñun suñu lettre ñu bind lettre ministre boo xam ne moo yore euh, collectivité territoriale monsieur Mamadou tàlla bon bind ko pour rencontrer ko lettre bi nag toog na lu yàgg rencontré ñu ba temps fan yi passé semaine passée la la jël bon pour woo ñu waxtaan bu mu ñu woowee waxtaan dalal na suñu xel tamit nee nañu état bi vraiment conscient na des enjeux problème yi am te euh, premier ministre incha allah dina waxtaan ak ministre des finances ak moom pour ñu seet ni ñu càmbaree mbir mi et puis dinañ ñu sax recevoir mais xam nga rencontre rencontre la le tout de mais rencontre boo xam ne amul benn proposition mënul tax ñun ñu génn ne dañuy arrêté suñu mouvement parce que waxuñ ñu dara loo xam ne mun nañ ko teg suñu loxo pour ñu mun ko teg si euh, loxo liggéeykat yi moo tax ñun tamit ñu ne ah comme que ñun dañu décliné woon benn plan d'action mooy maanaam chaque semaine leen lii rek dañuy permettre ni liggéey mais loolu dañ koy continuer parce que ñun jox ko ñu dara te lu ñuy réclamer depuis plus d'une année mais suñu ay droit la loolu daal moo indi coow bi mais nag ndamoo grève sax kenn waru koo def parce que grève kenn waru koo ndamoo parce que grève kenn du ci profito du ñun ñi nga xam ne tey ñun ñoo yore organisation syndicale yi di ko diriger du askan bi du du état bi personne ne profite de la grève maanaam kenn du jëriñoo grève grève ab amul njëriñ mais boo gisee liggéeykat yi tamit amuñu benn arme grève rek la ñu am pour ñu mun leen dëgg parce que tamit grève xëyoo la grève parce que suñu constitution ah, daf ko consacré boo xoolee article cinq constitution Sénégal dafa droit de grève dañ ko may nit yi ne nit ki su fekkee ne dañ dañ la bëgg a teg nattu bëgg a bëgg a salfaañe say àq ak yelleef am nga droit pour dem grève mais tamit doo dem grève rek pour dem grève dafa am ay procédure nga war a respecté dépôt préavis yooyu yëpp mais yooyu yëpp def nañ ko mais ba léegi tamit bon ni ñu gisuñu retour baton maanaam kenn woowuñu pour ñu jéem a toog pour régler problème boobu voilà les problèmes auxquels ñun ñun liggéeykat gox goxaan yi si la ñu nekk moo tax ñuy laajte suñu ay droit depuis presque plus d'une année kenn kenn fulaaluñu kenn faydaanuñu mais mais on est obligé de de continuer xam nañu nag ne ñun lu ñuy def nii parce que ñun euh, nu ko tubaab bi di waxee dañuy def gestion de proximité maanaam ñun ak askan yi ñoo jege dañuy liggéey pour askan bi parce que boo demee si suñu centre de santé nga dem suñu poste de santé nga dem les centres d'état civil ñun ñoo yore lépp xale yi tey ku si bëgg a dem jàngi école si ñun ngay jaar tey ku génn àdduna si ñun ngay jaar ku bëgg a def mariage si ñun ngay jaar loolu yëpp les soins parce que quatre-vingts pour cent de la politique de santé du pays mooy ñun nga xam ne ñoo nekk si collectivité territoriale suñu poste yi yi waaw loolu yëpp ko réunir bon tey ñi bugg a ba jël euh, collectivité territoriale bañ ko fulaal bañ ko faydal mais loolu day metti te ñun xam nañ ne tamit mais liggéeykat yi euh, du moins population yi ñooy loru ci mbir mi parce que tey ku fi génn dem di wut extrait de naissance pour sa doom ñu bëgg la ko xañ wala nga di euh, wut certificat de mariage pour déposer ay dossier ñu bëgg la ko xañ loolu tamit neexul te ñun ñi ñëpp ñun ñii tamit si réew mi lañu bokk si askan bi lañu bokk loolu du ñu neex mais nan la ñuy def parce que ñun tamit dañu bokk ci askan bi te dañu am ay droit yoo xam ne dañ ko bëgg a salfaañe loolu mooy wax bi. Euh, si soo kon bu fekkente ni euh, état bi deful dara da ngeen di continuer seen grève est-ce que grève bi da ngeen koy gën a méttil nga xam ne certificat de décès yi ngeen doon joxe sax da ngeen koy dakkal waa wala déet. waaw xam nga euh, dafa am aussi loo xam ne dañ ko tuddee ci ci rapport mooy humaniser dañuy dañuy parce que ñun tamit askan bi lañu bokk mun nañu dem grève te grève bi tey du ma ko ndamoo mais nee naa la grève bi population yi ñu ngi koy ressentir parce que tey boo ko boo wëree Sénégal boo leen defee yéen ay journaliste journaliste ngeen boo leen wëree Sénégal di ngeen xam ne population yi di ngi suivre les affres de cette grève là et grève bi dafa metti pour population yi bon léegi bon durcir ñun dañu ne dañuy maintenir le plan d'action plan d'action bi nag ñu ngi koy maintenir mooy les quatre-vingt-seize heures là duñ ko bàyyi yaa ngi dégg mooy mardi mercredi jeudi vendredi mais déjà loolu sax mais déjà loolu c'est trop pour des pour des populations imaginez-vous toute une semaine ñu bloquer les structures des collectivités territoriales xam nga loolu métti na mais nag luy pexe bi mais pexe bi ñu ko war a régler mooy ñi nga xam ne tey ñoom ñoo jiite réew mi ñoom ñoo am pour liggéey ay kat bu ñu nekkee seen droit am ay difficulté ñëw taxaw di ko réclamer waaw boo ko mënul faj nga woo leen sax waxtaan nga ñëw toog ne leen lii ak lii lay moo mun a nekk mais nga toog di leen seetaan ah ñoom tamit nu ñuy def parce que tamit euh, dafa am benn disposition euh, suñu constitution bu wax ne liggéeykat bu amee lu ko metti am na droit pour dem grève si la loolu ne nekk ñun euh, dañuy dañuy topp la procédure pour dem grève mais dem grève bi nii rek neexuñu wala loolu mooy wax bi voilà Cissokho euh, mm-hmm. euh, fan yi ñu ngi xaar gouverne euh, présidentiel taxawal gouvernement bu bees remaniement mm-hmm. ministériel mu nekk gouvernement boo xam du yàgg ni gi ni élection yi six mois yow en tant que syndicaliste en tant que liggéeykat lan ngay xaar ci gouvernement boobu nga xam ni dañ ko war a taxawal bu bees bi waaw xam nga comme que réew mi ñun ñoo ko bokk parce que c'est pas parce que tu es syndicaliste rek warloo wax sur l'affaire, la chose politique. Parce que même le citoyen lambda doit parler de la politique. Parce que politique, bon dañ ko def euh, c'est euh, pour cité bi pour maanaam euh, nit yi di wax si seen ay àq ak yelleef moo ñun dañu bëggoon ñun en tout cas ñun man de en tant que responsable syndical dama bëggoon que gouvernement bi ñuy teg nii mu gën a mettre l'accent mu gën a mettre l'accent sur la situation sociale des des populations de notre pays parce que actuellement euh, nit yi sonn nañu du fait de la de la vie euh, du coût de la vie bon euh, les les denrées de première nécessité ñëpp gis nañ ne dafa yokku bon mbiri yu loyer bi peut-être ça il y a des efforts qui ont été consentis mais doyul mais nit yi euh, sénégalais yi ñu ngi kii si dolli nga gis tey suñu jeunesse bi ñu ci bare ñu ngi jóg ci ay gal di di dem ay à l'étranger ah yooyu yëpp ah parce que bon boo gisee loolu ñu ne euh, ñàkkum liggéey bi et puis par état bi aussi di créer les conditions ah, yoo xam ne xale yi dinañ mën a toog si réew mi pour am fi lu ñu fi suuxlurloo de toog liggéey ñuy créer des entreprises ay créer ay yoo xam ne nit nit yi euh, xale yi la jeunesse dina ci gis seen bopp pour toog liggéey parce que xale yi bu ñu demee bay jël ay risques ñu gis ne seen ay morom dee nañu sax ci biir géej ñu ne ñoom dañuy dem par force loolu moo lay won ne c'est le désarroi total te gouvernement bi warul seetaan loolu mettre l'accent mu doon comme que président de la république moom ci boppam moo ne woon année deux mille trois deux mille vingt trois dana nekk une annonce sociale c'est une occasion rêvée pour le président de la république mu mettre l'accent sur le social pour euh, liggéey euh, pour euh, population yi quand gis ci seen bopp parce que ñun gouvernement bu ñu xaar mooy gouvernement boo xam ne day ñëw pour faire face aux préoccupations des populations pour trouver c'est vrai Sénégal daf nañ fi ay infrastructures daf nañ fi rafet loolu yëpp ñu ngi koy saluer ah parce que ñu koy bénéficier wu mooy population yi mais aussi dañu calculer ne à côté il y a des familles qui sont là qui souffrent il faut mettre l'accent sur ça ñii si fexe ba population yi nekk dans la quiétude di am ku bugg a añ ku bugg a reer reer ku bugg a euh, ndékki ndékki parce que loolu tamit si si àdduna la bokk si fii mais bon bu ñu amee ay infrastructures yu rafet am li lépp lu rafet fii Sénégal nekk kii te ñu nekk au-dessous même du seuil de la pauvreté tamit loolu waxuñu loolu donc population yi dañu am wàll ci réew mi dañ leen gëstu seet nu ñuy jéem a fexe pour améliorer leurs conditions sociale d'existence loolu moo am solo conditions sociales d'existence des populations man loolu laa noonu laa loolu laa gisee mbir mi te yaakaar naa ne président de la république euh, dina ci jóg vraiment on compte sur lui parce que les populations de notre pays sont en train de sou de de souffrir vraiment ça il faut le reconnaître ku wax ak ku ko waxul xam nga ne population yi métti na les denrées sont chères tout est cher dans ce pays là vraiment il faut une politique sociale accrue pour aller vers euh, la, résolution de ces problèmes là. Moussa Sissoko Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax. mais man maa lay remercier soxna si. Mhm. may may fàttali ni yow yaa jiite syndicat des travailleurs des collectivités. des collectivités territoriales ba nekk membre intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. voilà merci beaucoup Moussa Cissokho. mais man maa lay remercier madame.